xasim ba joona suubu leen dem gaar ba sëriñ Fallou Mbacke mi ngi feeñ jamono bisub aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab di ndeyi koor yamoo ak mars 1888 ca daaru salaam di dëkk bi sëriñ Touba njëkk a sanc fala feeñee moom magam ja cheikh Mouhamadou Moustapha mu yamook ak sancub Touba doomi soxna Awa Bousso sëriñ Fallou mi ngi dalee alxuraanul karim ci sëriñ Dame Abdourahmane Lo ak Mamor Diarra Mbacke borom saam gannaaw ba la leen sëriñ Touba jox. waxu maam Cerno Birahim Mbacke moom itamit la leen dénkoon bi muy dem ca géej ga 1902 gannaaw ba Cheikhul Khadim ñibbisee ci géej gi ànd naag Cheikh Moustapha ak sëriñ Fallou ca xumaak ca gànnaar foofu sëriñ Fallou jeeju fa lool ci ay xam-xam yu jafe woon lool te tumuranke woon ca jooju jamono gannaaw gànnaar ga Serigne Fallou Mbacke des di taqoog waajuram wa Cheikhul Khadim ca Ceyeen Jolof ak ca Njaareem diggante boobu Serigne Fallou bindal na Serigne Touba lu tolloo Njaasaan 1913 Serigne Touba digal ko moom ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu sànc Nindi ak Tindoodi Serigne Fallou sax Nindi fukki at ak ñeent di liggéey ak a jaamu yàlla di tarbiya taalibe yi tey bay di def ci jumaa ji 1927 Serigne Touba ñibbi aljana Serigne Fallou jël magam ja Serigne Modou Moustapha teg ko place ba mu tegoon waajuram Cheikhul Khadim 1928 Serigne Fallou moo tamit Serigne Touba yéena ju mu amoon ci aj Màkka muy aj gu rëy bu ñuy waxtaane ba jamono jamono ji mu di histoire bu kenn dootul fàtte mu àndoon ca ak maam Cheikh Anta Mbacke borom daaru salaam àndoon ca ak El Hadji Mbacke bu Sogede ak ñu bëri ca mag ña Serigne Fallou Mbacke taxoo woon lool ak Cheikh Mouhamadou Moustapha diirub lu mu doon xalif général de Mourides féete ko ci wet gu ne ànd ak moom liggéeyub jumaa ji 1945 Serigne Modou Moustapha wàccub liggéey seriñ Fallou Mbacke doon ñaareelu xalif général des Mourides ci jamono yu tar tombe ak guerre mondiale matuwaay yu am solo bokk na si defaraat dëkk bii di Touba képp ku askanoo ci Serigne Touba mu jox la fi kër loolu ci lu tolloog ñeenti téeméeri hectare bokk na ci engagement yi Serigne Fallou jël mooy fexe ba màggalu Touba ñi di ko defee Touba ci atu 1946 la ko woote loolu jur ak yeesal ci pas-pasu taalibe yi ak i tamit dalal seen xel ci tolluwaayu jamono ju metti jooju murid yi jaajuwaat soññeekuwaat songaat liggéeyub jumaa ji gannaaw ba Serigne Fallou Mbacke yeesalaatee plan yi xoolaat devises yi liggéey ba dooraat entreprise bu ñuy wax dara gaz gagné marché ba architecte bu ñuy wax Escotona moo yore woon liggéey ba fukki at ak juróom ci liggéey bu tar ci xañ sa bopp ci la Serigne Fallou Mbacké ak murid yi tabax jumaay Touba di jumaa ju rëy Serigne Fallou Mbacké jiite ko ci teewaayu kilifa yi ci réew mi yépp aljuma juróom-ñaari fan ci weerum juin ci 1963 Serigne jiite jumaa ji defal Serigne Touba ak bëggam mottali ay mbébétam yamu sa mu dellu yeesalaat kàddoom yu siiw ya mu di jaay gi mu jaay njureelam jëndee ko ak taalibe jël njëg la def ko addiyee Serigne Touba xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Fadal méngoog ak ubbeeku yoonu murit ci àdduna bi sànce yu mag ci la daal di door mu ñot raay bi tabax ay forage goudron yi Serigne Fallou di béykat bu mag toj àll yu bëri samp fa ay daara dooleel koom-koomu réew mi soppi tamit mbayin mi Serigne Fallou di woon maam ju ñëwante ay sëtam si jullit ndaw rawatina baykat yi ak ñi néew di doole Serigne Fallou Mbacké nekkoon ko xereñ lool te bari woon xam-xam saf xolom lool te neexub jotaay di woon ku bàyyi xel waa réew mi daan faral yëkkati ay kàddoom ci yu bari yu mel ne ci sëy yi noonu la ko daan defee tamit lu jëm ci nguur gi ak ci chauffeur yi El Hadji Fallou Mbacké di nit ko ubbeeku jëloon ay jëfam yépp teg ko ci jikko ju rafet ak masla taxoon ñépp sopp ko doon ko juboo ak boroomam lu mu wax mu fekk si ko si taxoon ñëpp da wut si ko nitu diine ak nitu àdduna daan xëccoo ay ñaanam mu doon ku takkoo ak président Senghor ñu fi woon jiitu réew ci jooju jamono ak Kazu Rajab Cheikh Mouhamadou Fadilu Mbàkke daan naka màggalal boppam Daaru Salaam la daan xëyee ngir li mu fa feeñee door a dem kër Sëriñ Afia Ñang li mu bokkal waajuram wu jigéen soxna maam Awa Buso ñaa fukki at ak ñett Sëriñ Fàllu doon xalifay murit yi yiir leen defal leen dalal leen waar leen tàmmal leen boppam def si ñoom dindi si ñoom 1968 Sëriñ Fàllu Mbàkke wàccub liggéey liggéey fii ci tuuba ci juróom ñetti fukki atam maam fàllu ca mbaax ga ca mat ga ca tab ga ak xam-xam ba ak sañ-sañ ba wuy ji boroomam mu bàyyi fi cofeel gu mat sëkk ci mbindeef fii ñi ko xamul ñoo ko gën a tee bëgg xam